askan wi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di ma saw ñëpp li fi xew di ma saw famille yi jigéen ñi bu baax seen sunu doom yi sunu frères yi nga xam ni bërki démb ñu ngi woon ca manifestation boobu nga xam ni du leen lu leen fa yóbbu bañ injustice ci réew mi parce que kat Macky jaar na fii def ko booba ba mu amee euh, Ablaye Wade nar ko nar ko euh, tëj nar ko indil problème jeunesse bi dañoo jug parce que Sénégal fii bëgguñu lenn loo xam ne nooteel la may masawu bu baax a baax sunu yaay yi sunu ñu nekk ci biir kaso bi te dinaan naan lii am nii muy aji Sarr maa ngi koy xamal ni xaw ma fu mu ne mais war na mën a réccu te seetlu nan saa yu jëf ju mel nii amee góor a nekk ci ginnaawam te nag nan ko moytu lii du wàllu jigéen ndax ñun ñooy yaay ñun ñooy yépp ci askan bi sunu doom actuellement ñu ngi nii nekk ci Covid bi société yi plus de 700 sociétés ñu ngi nii tëj kenn liggéeyul ñu ngi tal lu nu dundee nguur gi waroo ñoo indi leneen lu dul di ñëw nii. day tëj doomu jàmbur joo xam ne ti deful dara amaana doon na yaakaar ci réew mi sacrifié na viom léppam ndax Sénégal mu doon suñu yaakaar ëllëg mu taxaw ne da koy tëj déedéet duñ ko nango Ousmane Sonko na xamante ni si am na ay lingeer ci ginnaawam ñu ngi renouveler bu baax suñu engagement ci ginnaawam ñun lingeer yëpp ba pare ñun ak suñu coordination nationale muy madame Maymouna Dieye ñu ngi koy jaajëfal lim ñu wax chaque jour di réunion ñoo ngi ci taxaw bu soobee yàlla di dinañ taxaw takku injustice bii jigéen na ko def waaye ñun jigéen ñi ñoo koy faj incha allah may woo nag kilifa diine yëpp ak képp koo xamante ni si yàlla may na la nga jàpp ci parce que lii kat Sénégal la intérêt Sénégal la te ñun réew mii xaw ma fi ñu jëm fan la te buñ bàyyee mu jàll mooy sànku nan ba faaw wasalaam jaajëf